من ظنني خير خديم المصطفى فإنني أخدمه بما اصطفى أخدمه إلى دخول الجنة asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki internet yi nga xam ne yéen bàyyi xel seen chaîne bi di Assalaamy TV ñu ngi leen di nuyuwaat baax a baax di leen ziyaara di jiital ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké Bachir xalifa général di Mouride di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér mbokk yi tey ñu fa yéene ànd ak yéen seen premier numéro seen émission teg ko ci yoon ni leen ko doon waxee ci annonce bi ci fan yii yëpp bu émission boo xam ne dañuy waxtaanee lépp lu jëm ci wàllum actualité fi nga xam ne moo di ci réewum Sénégal rawatina fi xam ne moom moo di Touba. tey nag suñu premier numéro ñuy am mbégte di ci daral Alioune Dieng ndaw la nekk enseignant waaye it nekk coordonnateur fii nii ci diwaanu Touba. Euh, parti bi nga xam ne moom moo di union sociale libérale du USL bu maître euh, Abdoulaye Tine Alioune ñu ngi lay nuyu di la ziara. ñu ngi lay fay Serigne Fallou di la ziar bu baax di rafetlu bu baax invitation bi. jërëjëf mbokk yi ñu fas yéene waxtaanee lépp loo xam ne dafa jëm ci wàllum njàng meek njàngale mi ndax fan yi dégg ngeen président Macky Sall wax na ne dañuy delluwaat ci li nga xam ne moom moo di école yi. Euh, ñi nga xam ne ñoo di ndaw ñi ginnaaw bu ñu njëkkoon ne jàpp date muy le 2 juin ginnaaw bi ñu jàppaat beneen date Alioune décision bi nga xam ne président makk Sall jël na ko jaarale ko ci ministre de l' éducation Mamadou Talla est-ce que nekk na décision boo xam ne moom moo gën ci jamono boo xam ne toog nañ ndaw ñi toog daanaka ñetti weer yoo xam ne jànguñu. waaw Serigne Fallou question boobu noonu je pense que ni day am bu ko jiitu. Mm-hmm. moo di euh, il faut ñu xool ndax fañ jëlee woon décision bu njëkk bi baax na. Mm-hmm. Euh, boo gisee tey coow lu bari lu am si njàng mi mooy euh, dañoo jël ay décision yoo xam ne waxtu wañ ko jëlee jotul woon. Mm-hmm. je pense que ni c'est le principal problème bi nga xam ne moom moo am si njàng mi mais en tout état de cause moom jàngaat moom xale yi dañ ko war a def. Mm-hmm. man man amoon mon avis il faut xale yi jàng parce que réew mi moo soxla ñu am ay ndaw yoo xam ne dañ leen di former. Mm-hmm. te yàlla def na euh, dëkk bii di Sénégal euh, école yi ñu fi am ku si néew muy école publique yi daanaka ñoo yor njàng mi. Mm-hmm. école privée yi seen doole bariwul noonu kon xale yi bu ñu demul jàngi rek daanaka lu baree bari dafay nasax mais pour ñëwaat ci sa question. Euh, je pense que nii gouvernement bi moom euh, lajj gi moom je pense que nii sa njëlbeen ga la ndax fii ñu toll nii euh, li nga xamante ni moom mooy préoccupation nit ñi mooy décision bi gouvernement bi jël lu tax mu dem ba nit ñi gën a ragal seen seen fit gën a dem tey si si si si si tawat gi muy soog a ibbiwaat école yi donc loolu fi mu ne moom mooy problème nit ñi mais ibbite école gi moom vraiment en soi c'est pas un problème donc loolu moom fi mu ne euh, dañ naan bu ndox tuuroo an bàkk des rek. Hmm. gouvernement kon yow da nga jàpp ne waruñ ko woon tëj école yi. effectivement sëñ Fall waruñ ko woon a tëj man li ma jàpp mooy euh, on a pris des mesures yoo xamante ni euh, ce sont des mesures qui ont été prises trop tôt. Hmm. donc bi ñuy tëj école yi wax dëgg yàlla jaru ko woon. ndax euh, on était à quelques cas on devait au moins s'organiser pour voir comment on peut euh, encadrer tout cela mm-hmm. pour pouvoir avoir une sortie boo xamante ni ça serait plus honorable mm-hmm. parce que njàng moom mënta ñàkk njàng moom en en en euh, situation bu nekk rek mënuñoo bañ a jàng mais tey problème bi mooy gën a fa mu ko tëjee woon moom moo baaxul wax ji loolu la waaye tijji bi moom je pense que ni acteur yëpp d'accord nañu faaw ñu tijjiwaat pour mën a jàng. est-ce que doo jàpp ne ñi euh, ñi nga xam ne dañ ne président de la République dafa gis ne président bu France. dafa tëj école rek moom it mu tëj école yi est que doo jàpp loolu yoo tamit. waaw loolu loolu beneen débat la Sëñ Fallou xam nga euh, il faut ñuy analyser quand Euh, parfois bañ a passionné débat yi. Mhm. ñu si bari euh, lu xew rek ñu ne président dafa xool waa France dafa xool dafa copier dafa nangam. il faut aussi ñu ñu conséquent cest à ñun bu fekkee lu baax dañ ko war a def. Mhm. même bu fekkee France def na ko dañ ko war a def. donc on ne doit pas suivre cela benn mouvance boobu lu France def dañ koy def rek ba tey bu ñu waroon a tijji ñu ne France tijji na président ne kon bu leen tijjati. Mhm. kon bu ñu xoolee sax reprise le 2 fi mu ne fi mi toll nii en réalité le 2 bi nga xam ne dañ ko annulé woon. dañu njëkkoon ko jël mais ibbi bi dëgg-dëgg foofu la amoon solo sëñ Fallou ndax tey bu ñu xoolee tey li ñu doon bañ la deux ba tax ñu tijji. Hmm. amu ci lenn lu ci sotti fi mu ne nii. parce que le deux prétexte bi ñu joxe moom moo di am na ci enseignants yoo xam ne bi ñu jógee ci Dakar ngir rejoindre seeni seeni fi ñuy jàngalee dañu amee woon. mais effectivement effectivement je pense que ni loolu argument boo xamante ni pertinence bi des na trop. Hmm. parce que tey mënoo jël confiner ay régions nga jékki-jékki tijji de vingt mille enseignants. Hmm. demandoo ak seen famille nga ne. Euh, tey cas du am il fallait s'attendre à ça ça moom c'était vraiment évident comme ñi nga xamee ni tey bu ñu tijjuwaatee école yi il est fort probable tey ñu am ay cas ci école mënta ñàkk mm-hmm. mënta ñàkk mais je pense que ni tey gouvernement bi la mu waroon taxawaay bu mu waroon am mooy war a mën a prévoir loolu pour mën a xool nan la koy gérer mais tey tijji école ñu ne 10 cas am na après nga tëjaat ko man li may laaj mooy tey bu ñu tijjuwaatee bu 10 cas amee ndax dañuy mm-hmm. ko pour en cas ñu koy wax bu amaatee tey nan lay def je pense que ni c'est ça la véritable question. Euh, beneen question bi tamit mooy est-ce que école bi pare na pour mën a dékku li nga xam ne moom mooy pandémie bi ndax mesure d'accompagnement yi nga xam ne état bi mettre na ko en place muy jàppale leen ci port de masque ay alcool gel yu ñuy distribuer ay thermoflash est-ce que loolu doy na ci ngir ñu mën ko euh, xeex jàngoro bi ci école yi. waaw xam nga école Sénégal moom ku ko xam. Mm-hmm. ñii acteurs école yi xam ni problème yi mu am nii euh, gouvernement mënu koo faj ci quelques mois. Mm-hmm. Euh, ñu bari dafa am foo xam dañ fay juum mooy jàpp ne euh, Sénégal lépp da dox. Hmm. donc léegi dañoo am benn crise bu ndaw rek il faut gouvernement tax école Sénégal problème ya fa nekk buñ ñu toogaatoon fii fukki at du mu tax mu réglé ndax tey euh, dama naa la la majorité des écoles yi am Sénégal amuñu toilette.

ci seeni problème hmm. y a y a le problème des effectifs pléthoriques y a le problème euh, fi mu ne si qualité enseignement bi hmm. ay problème yu dul jeex yoo xamante ni tey bu ñuy xool ndax pare nañ pour jàngaat dama naan la déedéet bu dee côté boobu noonu hmm. mais est war nañoo jàngaat waaw parce que problème yi yàgg na fi sax du fi dañ donc on doit euh, on doit encore rouvrir les écoles pourquoi parce que xale yi ñoom ñoo soxla xam-xam li nekk ci réew mi tey bis bu ñu bàyyee nii nga xamante ni fii la toll je pense que le problème va s'aggraver de plus en plus parce que on va encore avoir des élèves yoo xamante ni ils vont abandonner école problème boobu noonu moo gën a garaaw mhm. parce que bu ñuy xool suñu suñu localité yi bari na ci élèves yu bari yoo xamante ni mhm. xaaruñ lu du toog ñaari weer wala ñetti weer jànguñ ba dem utu def mm-hmm. parce que la plupart ce sont des élèves yoo xam ne ils ont quitté les daara les franco arabes ñëw ci école bi ñooñu amuñu droit mën a tardé benn at wala ñaari at mm-hmm. tey kon euh, gestion bi nga xam ne gouvernement bi def na ko ci côté école bi dafa lajj bu baax parce que on n'a pas eu une vision globale de la chose mm-hmm. on n'a pas eu une vision globale parce que bu ñuy wax ay cours à distance ay cou ay cours ci télé yoo xam dañ koy jaar ci internet c'est une utopie yi amuñu culture boobu de un. de deux amuñu ay smartphone. boo nga boole ci nag. am na si ay localités yoo xam ne courant bi sax àggu fa. courant ba sax yeggu fa donc là c' est une autre c' est une autre euh, problématique boo xamante ni kenn xamul noo koy réglé en tout cas du réglé léegi léegi. xale bi dafa soxla présence su enseignant. xale Sénégal dafa soxla présence Sénégal tollugul foo xamante ni ndegam supérieur bi la enseignement à distance doxul. ku ne gis na problème yi nga xam ne UVS am na ko ak yeneen école mm-hmm. waxuma laa xale yi nga xam ne dañoo ay juróom benni at en plus mu doon xale yoo xamante ni la majorité seen papa mënu leen a jàngal. Mhm. donc mu doon aspect boo xamante ni parce que tey ki nekk Dakar un fonctionnaire wala koo xamante ni cadre la mën a am mën a bu wàccee mën a xool ay doomam wala mu ut ko encadré doom mais fekk ñun suñ doom yi ni mhm. ñun suñ doom yi lu ñu am ci école ba lañ ko amee. kon boo leen privé école bi mooy privé nga leen seen avenir. absolument waaw mooy seen jàng yàqu na parce que xalaatuñ ko feneen. Hmm. malheureusement nag lu gouvernement on dirait qu'il ne connaît pas vraiment le Sénégal parfois hmm. dañu jël ay mesures yoo xamante ni waxoon naa ko ci sama beneen intervention. xam naa incha allah dañ si ñëw ñeen ñi wax yenn saa ne dañuy tâtonner. dañuy tâtonner dañuy dañuy tâtonner donc du mais du tâtonnement kese parfois hmm. dañuy dañuy agir ak ignorance. parce que tâtonnement peut-être euh, man mënu ko nangu mënu ma nangu ñu ne dañuy dañuy agir ak ak ignorance ndax wax nañ leen ko. parce que ki amul benn information mooy tâtonné. Mhm. mais nit booy dem ci mbir ñu wax la information yi ne la nii ak nii nii nga war a doxee yow nga jël loolu lépp daal ko fay teg def li la neex loolu tâtonné woo. parce que mhm. kii tâtonné moom kooku dafa amul benn information. waaw ah, parce que état moom moo ëpp information. état am na information mais mais sénégalais yi sax Serigne Fallou mais mhm. ce sont des gens yoo xam ne ils s'impliquent à la politique de la nation. tey dama bëgg a ci loolu aussi. je pense que lajj bi ñu lajj bi gën a mag fii Sénégal. et ça ne date pas d'aujourd'hui mooy tey bu jàppee ni tey Sénégal élite politique bi rek moom moo ko mën a gérer. Mhm. élite politique rek ñoom ñoo am xam-xam. il faut nga jàngee Sorbonne wala nga jàngee Oxford. Mhm. wala nga jàngee bitim réew pour mën a ñëw développer réew mi. Mhm. loolu mooy lajj bi gën a mag boo xamante ni Sénégal def na ko. tey maa ngi fàttali aussi benn ouvrage boo xamante ni Jean Pierre Ndiaye di benn journaliste bu mag defoon na ko y' a plus de cinquante ans. nga may ma rek ma ñëw fàttali li mu waxoon def ne euh, mu ne euh, que doivent faire les Africains face à leur peuple et face au mu ne doivent-ils se nourrir d'un code élaboré sous d'autres cieux ou bien mobiliser l'intégralité de leur humanité cœur et esprit pour découvrir les clés du monde et de leur monde mm-hmm. donc boo xoolee rek daanaka loolu dafa résumer échec bi nga xamante ni gouvernement sénégalais ñi ngi koy am il faut ñu bàyyi jàpp ne lu baax lu nekk Europe la am il faut ñu bàyyi jàpp ne tey il faut nga sol costume wala nga wala nga jóge benn université pour mën a dox réew mi. Mhm. bu ñu xoolee cinquante dernières années yi réew yi fi développé yépp ay baykat ay nit ñoo xamante ni ils sont issus du bas peuple ñoom ñoo ko développé. mais tey ñi ñuy wax borom xam-xam yépp dem ci ay dëkk jàng bu ñu ñëwee yeneen réalité lañ fay indi. sa fekk na réew mi weesu foofu noonu. je mhm. pense que ni c'est le principal problème du Sénégal mhm. ba léegi ci euh, fànn googu mu jëm rek ci euh, njàng meek njàngale mi ndax gis nañ ne ñi nga xam ne ñoom ñoo di euh, ndongo yi comme sànq nombre pléthorique bi nga xam ne am na ci classe yi nga xam ne A3 la ñuy toog tey boo ko bëggee organiser ci école boo xam ne classe yi doyut nga bëgg leen organiser respecter distance bi boobaa da nga wàññi élèves yi xool noo ko noo noo ko organiser loolu tamit est-ce que nekkul problème lay doon. sëñ Fallou loolu problème bi ci gën a garaaw mooy classe intermédiaire yi. Mm-hmm. sa dañ leen a fàtte. parce que tey boo gisee gouvernement bi dafa sacrifier les classes intermédiaires. parce que ñoom nee nañ après dinañ ci ñëwaat pour wax nag fan la ñuy jaar ngir mën a. non dinañ ci pour dañuy wax quelles quelles seront les conditions de passage lañ wax. Mhm. mais waxu reprise moom pare nañ ci. waaw kon ñooñu moom mooy minimum dinañ toog huit à neuf mois yoo xam ne duñ jàng. mais suñ faalu loolu gouvernement faa mu def parce que dafa bàyyi ay problèmes yoo xamante ni dafay yàgg. Mhm. nit ñi dañoo manqué ay école nit ñi dañoo manqué ay enseignant nit ñi dañoo manqué ay table banc mu toog di ko seetaan di ko seetaan bañ am problème bu ne kët na jonn nag mu bëggoo lijjanti hmm. il faut mu am ñu mu sacrifié mais li gën a garaaw mooy sañ Fallou fi mu ne classe intermédiaire yooyu noonu duñ leen xalaat hmm. mais tey xale bu toog 8 à 9 mois jàngul kon ni ma ko expliqué woon sànq si condition yi nga xamante ne xale bi fenn dong la déggee naan ko 1 plus 1 égale hmm. kooku yaakaar naa ne boo defu ndaak mooy njàngam yàqu na gouvernement bi tey li mu def il le fait par nécessité parce que tey bu woon classe intermédiaire yi je pense que ni classe d'examen duñ fa xaj donc dafa xool ma sacrifier ñenn ñi pour sauver ñenn ñi mais je pense que ni booy sacrifier da ngay sacrifier la minorité Absolument. mais doo sacrifier la majorité mm-hmm. donc tey on a 3 millions et quelques euh, ay euh, élèves ak étudiants yow nga bëgg a sauver presque à cinq cent 500000 parce que ñoom ñooy def examen après nga nga nga nga sacrifier nga xamante ni c'est la majorité mais bàyyiwuñ ci xel mais je pense que ni c'est extrêmement grave ñoom nag intéressé wu leen parce que la plupart des écoles ici bu ñu xoolee les écoles élites en tout cas muy fii Sénégal euh, école privée yi gën a mag. Mm-hmm. bu ñu xoolee fale seen doom bi jàngee bu ñu nekkee élémentaire ñi nga xam ne am na am nañ chance am BFM am bac moom daanaka nekkatuñ fi. Mm-hmm. mais le problème du Sénégal mooy ñun parents yi suñ taxawaay ci réew mi ni muy doxee dafa des. ñun en tant que sénégalais en tant que citoyen de ce pays am nañ ci part de responsabilité am nañ ci part de responsabilité en tant que citoyen am nañ ci part de responsabilité en tan que parent. parce que tey parent yu bari jéemu ñoo gëstu jéem a wax ak ki nga xam ne moom moo yor seen éducation doom di ci waxtaan ak xale bi. parent yu bari fi mu ne daanaka béykool tëjee lañ gëj a déggante ak enseignant bi. mais tey état bi mënta xam la situation des écoles. parce que ñoom pilotage bi muy def moom head office ba rek la nekk. xamul lu xew fii nii. Mhm. tey man samay élèves man maa xam ban niveau lañ am man maa xam yenn élèves ñoo ci am problème man maa xam ñaata temps lañ war a toog soo ko commencé waat pour mën a def révision balaa ñuy dem. Mhm. parents yu baree bari lijjanti jànguñ na dem xale yi toog amuñu benn impact boo xam ne ñu ngi koy def ci seen éducation doom mhm. mais je parle de manière globale sax citoyen bi citoyen na ni. moom mooy politicien ki nga xam ne moom mooy toog xam ne moom moom mooy gouverneur walla mooy président walla mooy naam kooku dong moo xam mais c' est une grosse erreur parce que ñooñu tey bu ñu leen xoolee tey ils ne font même pas 5 pour de la population. bu 16 yaakaaree pour cent de la population pour développer mais on a un gros problème. Absolument. on a un gros problème. Sénégal nag foofu la toll parce que développement si ça va ça doit se faire de la base. Mmh. vers le sommet. Mmh. mais du sommet moom mooy développer base. Mmh. parce que sommet. dafay am benn day day day perdre de vue ce qui se passe à la base parce que la base est plus large mm. le sommet en général il y a seulement une ou deux personnes pyramide la mm. pyramide pour mu dëgër faaw base bi dëgër mm. population bi ñoom ñooy base bi cat li fi mu ne tey ña fa nekk tey ñun population bi ñoo leen war a wax ay xalaat ñoo leen war a euh, expliquer nan la réew mi war a doxee pour ñu mën a au moins am une vision globale. mais tam bëri na ci population bi ñoo xam ne ñu ngi wax mais tamit est-ce que élite ñu ngi leen di déglu wala bu ñu leen dégloo tamit la wax est ñu ngi koy tenir en compte. loolu mooy mooy li ma wax sànq rek c'est c'est c'est le malheur mooy de phrase Jean-Pierre Ndiaye bi dama ko indi woon loolu la rek parce que tey euh, en tant que citoyen faaw ñu gëm suñu bopp. parce que tey euh, dangay ngay nit moom day jàpp ne tey parce que diw moom euh, moom euh, nangam poste nangam la am ci réew mi rek. Mhm. que lu mu wax dëgg la. nit day wax sax tey nga am ak moom benn débat ñu ne la yow kii waroo ko weddi parce que moo la gën a xam mais pourquoi mu gën la man loolu laay laaj cest à nit ñi tey il faut ñu comprendre tey marchand ambulant bi moom moo gën a xam secteur informel. Mhm. ministre du commerce marchand ambulant bi moo gën a xam secteur informel il faut mu nangu. Mhm. tey agriculteur bi moom moo gën a xam secteur de l' agriculture moo ko gën a xam ministre bi. mooy loolof naan mbonaat mbonaat gën a xam la ca dégg ba moom mooy nuru ba ca ban ba. mais effectivement hmm. il faut aussi ñu am benn benn modestie boobu noonu. Hmm. mais tey bu fekkee dañoo ñëw bëgg a doon jàpp ne ñu on est des cadres qui sont vraiment des extraterrestres wala des des de des martiens yoo xamante ni c' est nous qui devons apporter la solution pour développer le Sénégal mais non je suis désolé. Hmm. loolu am ba Sénégal di Sénégal ba léegi. on eu le président Senghor bu ñëw jàpp nañ ñëpp ay ay ay ay lañ man maa xam. ay baadool lañ ñëpp xamuñ dara ay baadool lañ man maa am xam-xam man maa koy lijjanti. Mm-hmm. on a vu l' échec. Mm-hmm. c' est un échec cuisant. tey bu ñu fàttali ko Mamadou Dia mi nga xam président Mamadou Dia li muy wax. Mm-hmm. bi ko Senghor génne prison ñu laaj ko ne ko mais président yow sa problème yaak Senghor. ban jàngat nga si jàngat. mu ne man bi ma Senghor tëjee prison laa ko jéggal. ndax bi ma duggee prison rek dama jël aaya bi suñ borom naan qul lan tusibanaa illa ma kataballaahu lana huwa mawlana mhm. wa ala llaahi falyatawakkalil mu'minin mhm. kon lu ma dar rek suñ borom la mhm. mu ne waaye li ma mënta baal Senghor mooy départ bi Sénégal amoon nga xamante ni Afrique de l'Ouest Sénégal moo ci moo ci jëloon paix Senghor fexe ba yóbbu Sénégal ndaare mais loolu lañ fi am ñi fi ñëwaat ñëpp tey boo gisee président Macky Sall je pense que dinañ si ñëw ci kanam. Mhm. boo gisee président Macky Sall tey euh, échec bi nga xam ne am na ko ci gestion Covid bi. Mhm. mais c' est vraiment malheureux. parce que tey xam naa foofu dinañ si ñëw. léegi mhm. ñu bàyyi la rek ci euh, ci euh, dernière question bi mu jëm ci éducation bi gis nañ tamit Sénégal école yu bëri dañuy inondé ci nawet bi ndox mi dafay bëri lool lool lool lool te loolu ça fait des années. lijjantiwuñ ko fi mu toll ñu ngi dugg ci nawet mu ngi tàmbalee taw zone yu demee ni ndox mi dafay bëri ak yeneen zone comme surtout partie partie sud réew mi. effectivement ndax loolu tamit du doonaat tamit gàllankoor ci njàng mi. gàllankoor la sëñ sëñ Fall li ma la wax rek les pots sont cassés. Mm. on essaie de récupérer ce qu'on peut ramasser. Mm. gouvernement bi dafa laaj ci commencement bi parce que euh, le gouvernement a pris des mesures yoo xamante ni période ba mu ko jëlee du boobu. Mm. donc tey li ñu mën a def rek mooy essayer de ramasser les pots mais tey problème inondation yi bokk na ci. mais mooy bi gën a tuuti. tey on sait que monde rural bi la plupart des élèves sont sont des agriculteurs. ñooy dimbale seen papa yi man j'ai eu un enseignant qui m'a appelé hier mu ne ma directeur damay dem bay mhm. tey fu mu ne quest va faire comment est va organiser cette classe là. Mhm. donc tey ay problème yoo xamante ni tey. xaj na mu mënuñoo am solution bi parce que ce sont des problèmes endémiques yoo xam dañ koo bàyyi ba mu dema dema daw ba law ba nga xamante ni pour ñu indi benn solution bu bu ko régler léegi-léegi ça va être très difficile man daal li ma gis mooy instant bi gouvernement bi moom éducation bi laaj na si mi ngi xool nag nan lay def pour mën a ramasser les pots cassés donc on espère que vraiment on va s'en sortir quand même gouvernement bi éducation bi laaj na ci mbokk yi yéen bàyyi xel seen émission teg ko ci yoon ci seen chaîne bi di Assalaamy TV ñu am mbégte tey di ci dalal Alioune Dieng di enseignant waaye tamit bokk ci USL bu maître Abdoulaye Tine Alioune ñu jóg ci beneen aspect muy euh, Covid 19 bi gis nañ ñi mu sonalee àddina bi waaye gis nañ ñi mu sonalee Sénégal ca ndorteel ga ak léegi daanaka ñetti weer yoo xam ne réew mi euh, bëri na ci yoo xam ne mi ngi fiy am jafe-jafe ci wàllum koom-koom ku nekk mi ngi koy sentir état bi ni mu ko géré gëm naa ko gëm ma ko yow ban xalaat nga ci am ci état bi ni mu géré. pandémie bi fii ci Sénégal. waaw euh, gestion Covid bi li ñu ci mën a wax bari na ndax xam nga dafa bari ay volets. Hmm. donc tey bu ñu xoolee volet sanitaire bi. Hmm. am na lu bari lu ñu ci mën a wax. Euh, volet politique bi am na lu ñu ci mën a wax. Hmm. mais volet social bi nga xam ne moom moo gën a euh, moom moo gën a intéressé askan wi aussi am nañ lu ñu ci mën a wax. d'abord volet sanitaire bi. donc volet sanitaire bi tey man dama jàpp ne Sénégal moom erreur bu mag a mag bi ñu def. mooy dañoo jël. une question sanitaire ñu politiser ko donc tey c'est une maladie. Mm-hmm. man boo fekkee xool nañ ci ginnaaw je pense def naa ci intervention yu baree bari mm-hmm. c'est la mu leen waxoon lépp gis nañ ko leen tey il faut que ñu am benn dëgërlaay boo xam ne dinañ ko mën a am parce que tey Afrique coono yi mu jànkoonteel. Mm-hmm. warta mën a jël une maladie européenne tey su ma nee une maladie européenne nit ñi duñu ma comprendre tey il faut que nit ñi xam fan laay waxee. quand je dis une maladie européenne parce que européens yi ñoom ñi ngi soog a gis feebar bu leen jaaxal. mais Afrique ñun gis nañ ba taay feebar yoo xamante ni jaaxal nañu gis nañ fi palu bi gis nañ fi sida mm-hmm. gis nañ fi yeneen feebar yoo xamante ni chaque jour mm-hmm. wax dëgg yàlla ça fait des des de million millions de morts mm-hmm. mais feebar bi gën a jaaxal Afrique sëñ Fallou mooy xiif est-ce que xam nga xiif dina rey quatre millions de personnes chaque année Afrique dans le monde principalement en Afrique 4 millions de personnes la xiif di rey principalement dans le monde euh, en Afrique donc tey je pense que ni pandémie yi ñun bi ñu waroon a jaaxal mooy c'est la pandémie de la faim mais tu mënuma comprendre tey benn problème am en Europe je suis d'accord que ñu jël suñuy précaution mais je suis pas d'accord ñu gérer ko ni ko européens yi di gérer donc échec bi nga xam ne moom moo gën a mag ci volet sanitaire mooy même ci côté sanitaire bi dañoo def ni français doon de bu ñu xëyee on a mille cas le cas viennent de Touba les cas mu indi nag benn Euh, problème boo xamante ni stigmatisation boo xamante ni. Mhm. man waxoon naa leen ne la fii lañ jëm je l'avais dit trois mois en avant. mën mhm. na leen lii ñuy def nii bu continuer dinañ dem ba am problème bu mag a mag boo xam ne ci réew mi ñu xam fu ñu koy lijjantee. Mhm. c'est la ma leen waxoon lépp gis nañu. c'est-à-dire euh, des politiques il faut aussi ñu aller au-delà vraiment des considérations yi géopolitiques yi am. il faut ñuy jël seeni solution endogène. ñun faluñu euh, benn benn président étranger faluñu n'importe on a on a élu le président Macky Sall qui est un Sénégalais qui est né ici. Mm. donc ñun li ñuy xaar si moom moom mu indi ay solutions yoo xam ne ce sont des solutions sénégalaises au problèmes sénégalais. Mm-hmm. mais malheureusement ce qu'on a constaté mooy à chaque fois on apporte des solutions étrangères à des problèmes endogènes. Mm-hmm. ñu am suñuy problème yu ndaw ndaw ñu indi ñu ay solutions yoo xamante ni franchement du fii nii. donc volet sanitaire bi moom ñun dañ koo lajj bu baax a baax moo tax tey communication bi doxul. bu dee volet politique bi. volet politique bi li ci gën a xoromu sëñ Fallou mooy euh, damay wax ni président sénégalais yi bu ñu leen falee dañuy foog ni ñooy patriarche ci réew mi dafa am image boo xam ne daf ma reetaan loo bi ma ko seetaanee. Mhm. ndax dama gis président Macky Sall tey mu dem port. Mhm. ñu wone ko. Mhm. mu mel ne kuy maaj. di def di di di def tour d'honneur. ñu gis ko. Euh, muy dox ci ay tonnu ceeb. mais sañ sëñ Fallou ñun xiifuñ. Mhm. Sénégalais yi ñun problème mu Covid bi mu fiy ñëw mais franchement ñun amuñu benn problème bu majeur on avait seulement besoin de quelqu'un boo xamante ni il peut gérer la nation rek ñu jàll affaire loolu. Mhm. mais tey les président sénégalais lii seen problème mooy jàpp nañ sénégalais yépp ay dof lañ ñoom doo ngay nit. Mhm. Sénégalais xamuñ dara ñoom dong ñoo xam dara. Sénégal li ñuy xaar si ñoom mooy ñu indil leen ceeb indil leen suukar mais on a pas faim. on a juste besoin. koo xamante ni il va être là pour régler les problèmes yi nga xamante ni ce sont des problèmes conjoncturels. Mm-hmm. ay problèmes conjoncturels la rek yu ñu war a dépasser. Mm-hmm. mais président boo ci gis rek lu xew mi ngi ñëw jaagat jaagat j'ai donné du du riz. de ah, ceeb bi fu mu toll suukar si fu mu toll mel ni ay nit ñu xiif nga leen di dundal. Mm-hmm. mais il faut qu'on arrête cela. franchement le Sénégalais c'est quelqu'un de très intègre c'est quelqu'un de très digne. tey seen ceeb bi ñu yor yaakaar naa dina maxe fi mu ne si seen si seen stock yi parce que kenn soxlaatu ko mm-hmm. li ñu soxla woon rek mooy ñu bàyyi ñu dem liggéey ba bañ ko defee it je pense que ni ceeb bi ñuy joxe ñu ngi wër kuñ ko jox gisuñ ko sax parce que nit ñi ñi ngi dem di liggéey mm-hmm. donc tey volet politique bi tey le le président Macky Sall malheureusement dafa politiser loo xam ne dafa mujj dal ci ko am ndax dafa jàppoon ni il peut tout faire man nag bettu ma mm-hmm. parce que man dama ne leen ku yor réew mi juróom-ñaari at ba dugg si juróom at ñu jox la lépp munoo régler problème mu réew mi benn pandémie ñëw nga ne yéen ñëpp toog leen si kër dinaa leen dundal sénégalais bu ko gëm ba toog sa kër ba amoo dépense yaa tooñ sa bopp mm-hmm. sénégalais yi ko gëm ñoo tooñ seen bopp parce que man ku ma mënta jox añ soo ma diggee reer duma ko fa xaar mais sénégalais tamit ñoom il ñoom ñu gëm lu parce que réew mi dafa am ay yoon dafa am ay loi couvre-feu am na am jaar na fi euh, état d'urgence jaar na fi am na si yoo xam ne il faut nga respecté boo ko respecté yoon day dal sa kaw sénégalais mosuñoo gëm Macky Sall da leen a jaay doole musuñu ko gëm parce que la la la force de la loi ça n'a rien à voir avec la perception qu'on a de la loi la loi moom c'est la loi tey bu ñu ne woon bu kenn génn ci mbedd mi donte xam nañu jaaduwul duñ génn si mbedd parce que parce que nous sommes des républicains dinañ ko def mais on sait que ni tegu ko fenn mais si on prend par exemple tey le couvre-feu mais Sëñ Fallou tey ku ne xam na ni tey même allègement bi ñu def ay yóbbu ay couvre-feu ay 23 heures mais loolu lenn lay lay li muy wane moo di on a président ki a peur de la situation hmm. président bi tey problème am bi yépp mooy amatul confiance ci nit ñi pour moom nit ñi amu ci kenn koo xamante ni bëgg na ko mu toog foofu noonu c'est il se trompe. parce que nit ñi tàmbale woon nañu révolté wu. loolu moo mujj nit ñi nit ñi ils ne se sont pas révoltés pour Macky Sall ils se sont contre la fin absolument c'est-à-dire les Sénégalais bu ñu la xasee ba fal. Hmm. li sëñ Abdou Lahad waxoon Senghor ne ko war yaa bi Senghor di dem mu ne ko yow de yaa ngi ñëw di di dem sénégalais yi sant nañ la waaye buñ la santee benn war nga leen sant fukk waaw ndax ñoo la fal sa bañ la falee foo li wuñ la mais Macky Sall ñun ñoo ko fal bañ ko falee jox nañ ko assemblée national coolee bari rek mais ñun population bi ku ci nekk yaa ngi xëy di wuti loo def sa kër mais bàyyi Macky Sall muy liggéey kon on n'a pas un problème avec Macky a un problème avec les méthodes du président parce que tey mënuñoo comprendre tey nga jàpp ne problème bu am rek problème mu gendarmerie la problème mu police la il faut nga wane doole il faut nga wane tu contrôle quelque chose on n'a pas besoin de ça ñun li na nga na indi jàmm ci dëkk bi nit ñi liggéey bu fi toogoon tey ba mandaam jeex bu ko fi yàlla tegaatee on va l'accepter mm-hmm. mais na ko teg ci yoon waaw na ko teg ci yoon kon ni nga ko waxee sa émission bi mm-hmm. na ko teg ci yoon mm-hmm. mbir yi loolu dong la voilà kon na ko président teg ci yoon donc euh, Aliou ñu aborder dernier point bi mu jëm rek ci euh, li nga xam ne moo di seen activité parti bi du USL yi amal seen i yëngatu fan ngeen toll ci préparer élection locale yi. waaw d'abord USL euh, c'est un parti qui est relativement nouveau. Mm-hmm. le parti mais tey le président Abdoulaye Tine je pense que ni képp koo xamante ni tey démocratie réew mi ñor na la yàgg nga koo xam. Mm-hmm. ci luy jëmale kanam réew mi. dama koy wax à chaque ne avant alternance 2012 bi président Abdoulaye Tine bokkoon na si ñi nga xamante ni taxaw nañ ci réew mi xeex ba alternance boobu am sa ba mu koy def da koo def en tant que citoyen kese. Mhm. bañ paree la leen jox seeni i bagage dem bu dollu ci liggéeyam. Mhm. kon moom ay ba mu koy def ay ay considération politique sax taxul woon mu def ko da ko waroon da ko doon def rek parce que c'est un citoyen. Mhm. donc parti boobu nag c'est un parti qui mais parti boo xam ne parti très dynamique ndax li tax ma ne c'est un parti très bari na Sénégal ñoo xamante ni c'est vraiment les acteurs politiques mm-hmm. au vrai sens du terme acteur politique mooy ñi ngi contrôler action gouvernement bi mm-hmm. donte sax amuñ ay parti politique donte nekkuñ ci mouvement doo leen dégg waaye tey ñi ngi xool gouvernement li muy def jaar na yoon wala jaarul yoon lépp loo xam ne war na amal njariñ askan wi ñu ngi koy def président nag ñoo ñooñu la dajale tey ñu ci ëpp nga xamante ni ñoom ñoo bokk ci parti bi di parti USL. Hmm. ñuy wax waajal bu baax nag élection local yi. Hmm. ndax tey euh, dañoo def benn appel bu mag boo xamante ni képp kuy jeune. Hmm. ñun jàpp ne dafa am révolution ci localité yi. li ma waxoon sànq ne un développement ça doit partir de la base vers le sommet loolu mooy Sénégal mënuñoo am ay représentant locaux yoo xamante ni tey barab yañ nekk. dañ fa nekk rek ki nekk ci bopp nguur gi nga xam ne politique rek lañ fa nekkee et malheureusement c'est le cas du Sénégal. nañ sax ñoo xam ne tey ay maire lañ wala ay représentants locaux noonu ko tuddee ñoo xam ne bërëb bañ dëkk néewuñ fa defewuñ seen activité ñu ngi dakaar damay jël kaaw ministres yi nga xam ne ay ministre lañ ay maire lañ ba pare seen activité yëpp ñu ngi dakaar rarement la ñuy ñëw ci seen localité yi. mais sëñ Fallou fi mu ne nii Sénégal waroon na toll foo xamante ni tey képp ku am benn responsabilité boo xamante ni état da la soxla. Hmm. tey localité bi nga jox ko keneen parce que Sénégal localité yi dañoo lompoñ mm-hmm. le problème du Sénégal c'est un problème boo xamante ni tey dëkk yi gën a sori ñoo gën a am problème foofu lañ waroon a gën a mettre l'accent mm-hmm. mais tey bu fekkee dañoo jël ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñoom ñoo euh, ñoo ëpp doole ci réew mi ñu yóbbu leen mm-hmm. ci barab yi nga xamante ni tey par exemple tey mooy barab yi ñuy jëlee décision yi problème dafay am donc tey man je pense bien que ni war nañoo xool tey nan la ñuy organiser tey suñu législation ba nga xamante ni gox-goxaan yi dañoo soxla quelqu'un qui est présent mhm. per de manière permanente ci lieu bi mhm. parce que dañoo ay problème yoo xamante ne ay problème endémique yu doy waar la mhm. su ma jëlee tey suñ localité bii nii di Kaolack nga xam ne fa laa jógee démb tey Kaolack ba Kaolack di Kaolack ba léegi tey maire bu ànd ak état rek moo fay ne xaw loolu ba xam seetlu nañ ko wala parce que dañu jàpp ne ku bu ànd ak état boo fa nekkee du mën a liggéey loolu la liggéey la question mooy ñi ànd ak état luñ fa liggéey Kaolack c'est la localité boo xamante ni moom ba indépendance ba léegi day gën a dellu ginnaaw rek mais gën a avancé wul mm-hmm. donc tey ñi ànd ak état lan lañ fa def c'est ça le véritable problème li ànd ak état xam nga lan lañ fa def sëñ Fallou mm-hmm. politique mais il faut tey ñu am audace am courage boo xamante ni on va prendre des jeunes yoo xamante ni mm-hmm. ils sont intéressés par le développement de leur localité ils vont s'engager pour ce développement mu doon de manière permanente ñun mën fa nekk mais mënuñoo jël ay nit ñoo xam ne ils sont là seulement pour avoir des des des des nit ñu leen voteel wala ñu fexe ba fala président bi fi nekk. mais du yomb de. xam nga dara du yomb Sénégal sëñ Fallou. Mhm. Sénégal tey révolution mënta yomb une révolution n'est jamais pacifique. Mhm. loolu mun mënta yomb. Mhm. révolution moom faaw nit ñi mu jaral leen leen. parce que tey Sénégal bi muy doon Sénégal ay nit ñàkk nañ seen bakkan. yàlla nañ si yàlla musal yàlla mu amati. waaye ay nit tëj nañ leen prison mi nga am ba léegi loolu moom. ay nit fii jaay nañ leen fi doole ba léegi mi ngi am. waaye tey réew mi il faut mu jaral leen ko. kon tey engagement bi nga xamante ni jeunes yi am nañ ko pour seen localité il faut nag population bi am si ñoom confiance. Hmm. population bi ñoom ñoo war a xam ni liy développé localité bi doonatul benn maire boo xamante ni ba mu nekkee France léegi mat na 20 ans. Hmm. président woo ko ne ko demal gox ba nga juddoo gëj nga fa fanweeri at nga doon maire. mu hmm. ñëw bëgg ne moom mooy développé gox bi. il faut yi xam li ñu bëgg aussi. parce que on peut pas développer ce pays kon ni ma ko waxee sànq sans que base bi si boppam engagé wuñ pour mën a am développement donc je pense que ni ça c'est le plus important il faut que bi xam ni le développement ça doit partir de pour aller vers le sommet mais bis bu ñu jàppee ni kii moo xam waa ji jógee France moo xam waa ji liggéey ministère ki jaay Oxford moom moo xam xamuñ dara ñoom ñun ñoo yem ay sénégalais lañ ñu nekk ñoom ñu ak ñoom on a tout vécu ëpp ñu xam-xam gënuñ ñoo bëgg réew mi gënuñ ñoo xam li xe li nekk ci réew mi. Mm-hmm. nit nag fu sa yitte toll rek je pense que ni foofu la say réalisation di toll. mais je pense ni ompa peut aller fépp fu ñu bëgg a yegg war nañ fa mën a yegg. Aliou maa ngi lay sant bu la gërëm sa kàddu yu mujj la lay doon. di rafet la bu baax émission bi sëñ Fallou di la ñaanal euh, liggéey bi nga xam ne tàmbali nga ko sa muy liggéey boo xamante ni yombul ndax un engagé boo xamante ni. Euh, yaa ngi fexe waxtaan ak jeunesse bi. Mhm. parce que gis nañ ni Sénégal malheureusement tey mag ñi rek. Mhm. la ñuy jox kàddu. Mhm. mag baax na waaye wal jooja Njaay tey bi ñu ko falee ministre na ko lan mooy sa xalaat ci jeunesse bi nga am ak ministre bi. bi ñu la fal daf ne un pays jeune a besoin des jeunes pour se développer. absolument foofu mooy sama kàddu bu mu jox. jërëjëf euh, Alioune Dieng tey jii moo doonoon euh, suñu gan seen premier numéro seen émission teg ko ci yoon ci seen chaîne bi di Assalaamy TV. ñu leen di santaar bu baax di leen gërëm di ko sant ci euh, wuyusi gi ñu wuyusi gis nañ effort bi nga xam ne def na ko ndax dafa voyagé woon te bi ñu ko ko waxee dafa déplacé wu ñëw ngir ñu amal émission bi santaat leen bu baax gërëm leen wéy leen di ànd ak ñun ci seen chaîne bi di Assalaamy TV ngir lépp loo xam ne moo fi euh, bàyyeekoo ñu koy waxtaanee rawatina di ci dalal ndaw ñi ngir ñuy joxe seeni xalaat ndax ñoom si lañ bokk te it am nañ xam-xam bi dig leen daje incha allah beneen ay bés ci beneen numéro te ko ci yoon jërë jëf. من ظنني خير خديم المصطفى فإنني أخدمه بما اصطفى أخدمه إلى دخول الجنة دار القرار والمنى